ñoom nag ñi ngi toll ci diggante 10 ak 11 nit ñi nga xamante ne police teg na leen loxo ci groupe nit ñooñu nekkoon ca soirée privée ba ci la Dame Amar bokk di doomu milliardaire boobu ñuy woowee Ahmed Amar te génn àddina si lu yàggul moom sax dafa bëggoon a daw ci ginnaaw gi la ko police teg loxo am na it ku ñuy woowee LB di doom bu jigéenu président de fédération ci benn discipline sportive fii ci Sénégal ak benn serveur ci benn hôtel bu siiwa siiw lool ci ndakaaru fàttewuñu benn agent boo xamante ne dafay liggéey ci benn boîte de nuit ak beneen waay boo xamante ne dafa yor benn réseau de mannequin ngir màkkaro ak dab bànneexu doomu boroom alal yooyu le bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango libération online yi enquête bi fësal na ay xibaar yu njëkk ci mbir mi mi ngi xamle ne Iba Thiam dafa fekk ci group bu nit ñooñu ci appartement ba gannaaw ba couvre-feu bi commencé moom sax ay 22 heures la yegsi ci bërëb ya ndax ndimbalu kenn ci ay xaritam Dame Amar di doomu Ahmed Amar moom dafa xamal l'enquêteur yi ne bi 23 heures jotee ci la dem nelaw ak copinam nee na bi 5 heures du matin jotee ci la kii ñuy woowee jàbbataal fekk ko ci biir néeg bi ngir xamal ko ni kii di Iba Thiam dafa am ay problème bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñi fekkee mbir mi ñoom nee nañ Iba Thiam overdose moom moo ko rey ndax dafa doon yuut après muy wàccu deret ci ay waxtu yu baree bari bu Diop pour seen xibaar info